Clédor Sène euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey yow yaay euh, njiital mouvement citoyen bi di Claire Vision gindi askan wi. Mhm. alors ñu door euh, waxtaan wi ak ITIE mi nga xam ne dafa génne rapport am ajuma bi ñu weesu boobu le rapport nag mu wax ne lii di industrie extractive yi li ñu war a verser collectivités locales yi ak état mataluñu ko yooyu les manquements yéen naka ngeen ko jàngatee ca Claire Vision. waaw xanaa di di di di félicité waa ITIE tam parce que euh, seen liggéey dina tax ñu am visibilité ak ay base de données yu bëri léegi euh, ñi nga xam ne ñoo fi exploité ay ay ay mines euh, la ñuy jox collectivités yi sax man ñun lu ñu xeeb la au niveau de Claire mooy mooy responsabilité sociétale d' entreprise ay prélèvement minier minimum ak ay ay ay appui institutionnel ay indemnités yoo xam ne ay weccit la ay rusit la ci ñoom la ñuy am ci suñu koom-koom ndegam lu néew loolu lañu ñu wàccoolul euh, euh, euh, wax waxtuma ak leneen loolu donc lu lu lu inacceptable parce que loolu d'abord dafa néew bu noppi wàccoowuñu ak moom kon dafa mel ni ñun amuñu amuñu état donc li waroon a am mooy ñu ñu dooleel sax gox-goxaan yi nga xam ne ñoom dañuy am ay koom-koom ci seen ci seen ci seen suuf te duñ ci profiter au lieu ñu leen di fay ay weccit ñun dañu gis ni. ñoom dañ leen a waroon a sédd ci paar yi ba nga xam ne ñoom dañ ciy gis seen bopp dañ ciy am ay retombées direct nga xam ne duñu ñu toog di xaar ku leen di dimbali mais seen cër ci li moom la ñuy jël financer ko seen développement local loolu mooy yoon. alors euh, yaa ngi wax sànq aussi euh, ci euh, li nga xam ne rapport boobu fësal na ko mu mel ni luy dëggal sa tuuma yi nga yëkkati woon. waaw xam nga man tuuma la naa fi président de la république ni dañu total dafa fay dix millions de dollars Euh, su su su siiwalee euh, décret d'approbation te loolu guerre la wax naa ko depuis deux ans maa ngi koy répété kenn démentiruma donc euh, contrat boobu ñu ngi ko signé depuis mais deux mai 2017 kon tey jii 2020 la ñu visé disposition boobu ni total la mu la mu fay li li yokkuloo retombé yi ci ci ren ji bokk na ci li total fay deuxième tranche bi maanaam dix millions de dollars boobu pour ñu tabax institut de pétrole et du gaz te li total fay waruñu ko def affectation direct parce que lépp luy dugg ci suñu suñu budget ak lépp luy génn dañ ko ci war a mandargaal ba noppi doog ko affecté feneen mais waruñu jël dara dugal ko fenn directement sans mu dugg ci budget bi kon ñaari jalgati moo moo nekk foofu te ñetteeli jalgati bi mooy amul benn contrat bu am disposition boo xam ni président da ñaan lu mu tabaxee école loolu amul ci benn contrat kon loolu ci dictature lañ jëm te jalgati la bu bu bu fës a boo xam ne ñu ngi ko mandargaal fii ci rapport bi d' accord alors ñu ñëw ci taxe locative euh, foncier autoroute à péage bi nga xam ne euh, ñu ngi ko euh, tënk ci 1000 francs foofu lañ ko xayma ci juróom-ñaari at kon Sénégal am junni ak ñeenti téeméer di mille francs ci exploitation autoroute à péage bi maanaam foncier bi di suuf suñu jëfandikoo muy lu bett ñu bari yéen Clair Vision ban gis-gis ngeen am ci boobu taxe locative ak fi ñu ko tënk di 1000 francs waaw tax locative boobu dafay refléter rek vision wu chef de l'État bi nga xam ne ci benn discours newoon na tubaab yi euh, jàmbaar lañu parce que dañu ñëw Afrique di investir Afrique mi nga xam ne dafa dafa am ay ay guerre am ay feebar kon ñoom bu ñu bàyyee foofu ñëw fii war nañ leen jox lépp donc loolu moo tax ñun ñu leen di exonérer taxe ñoom du ñu fay benn tax pendant quinze ans loolu moo tax ñu leen di jox suuf gratuitement euh, euh, mille francs boobu ñu leen di fayloo à titre symbolique kese la à euh, titre symbolique kese la mais doomu réew mi bu ko bëggoon du ko am loolu ñàkk gëm sa bopp la mais sax saxe su suufu réew ak sa alalu réew la parce que ñun waroon nañu am alal ci autoroute à bi au même titre ko tubaab bi parce que suñu réew la nekk suñu xaalis moo ko financé mais exploitation bi ak njëriñ bi yëpp ñoom ñoo koy jël mu ngi mel ni li am ci ndox mi rek infrastructure yi ak installation yi ñun la Kër Momar Sarr bo amee problème ñun la bu amee retard d' ñun la mais exploitation bi tubaab bi la ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoo ñuy jaay ndox mi jël seen xaalis dem donc li ñu def ci autoroute bi 1000 francs euh, par en noonu la ñu def aussi ci ci or beeg phosphate beeg fer beeg ciment beeg lépp luy industrie extractive parce que pour nga am permis de recherche Sénégal 500000 ngay fay. pour nga am concession nga xam ni loolu moomeel la loolu mooy suñu moomeel bàyyil nañ la ko këyit boobu mën nga ko yóbbu banque tayle ko hypothéquer ko mën nga ko mën nga ko jaay mën nga ko sax jaay c'est cessible mën nga ko abale mën nga ko joxe euh, gage loolu yëpp yaa ngi koy amee ci sept million cinq cent mille ñu jox la ay kilomètres kilomètres carrés boo xam ni ay or a fa nekk wala ay ay ay ay yeneen xewal yu mel ni euh, euh, pétrole wala wala phosphate wala wala wala zircon sept millions cinq cent mënoo ci am terrain bu baax Pikine wala Guédiawaye loolu la ñuy joxee miinu or yi loolu la joxe joxee miinu zircon yi loolu la ñuy joxee miinu phosphate yi kon tey jii autoroute bi yoon boobu rek la jël maanaam fayeeku ci mille francs maanaam jox lépp tubaab bi te te ñun euh, secteur privé national bu ñu bëggee liggéey ñu indi ñu taxe indil ñu impôt indi ñu état indi ñu gàllankoor yu bëri bëri bëri bëri alors suñu njiit yi war nañu xalaat suñu développement réew plutôt que développement tubaab bi. Mhm. su ma la déggee dafa mel ni sénégalais yi kon askan wi ci boppam euh, amul euh, li nga xam ne moom la waroon a am euh, ci exploitation wu ressources yi ak sax foncier bi nga xam ne yenn saa mun nañ ko luyee comme ni ñu ko defee ak Eiffage yéen est-ce que am ngeen ay solution yoo xam ne moom ngeen proposé pour que njariñ loolu mën a rogalaat ba ci askan wi. waaw dëgg la askan bi amul li mu war a am ci exploitation ressources minières yi parce que même li dix pour cent bi état bi jot am yenn saa yi da koy jaay parce que Sococim état zéro franc la fa am léegi amatu fa dara lu fa amul yëpp jaay na ko donc ñun li ñu gis mooy au lieu ñu ñuy jox ay tax di dox collectivités yi ay taxes yu yu ndaw ndawaan dañu leen war a impliqué ci actionnariat wu lépp luy génn ci seen ay suuf ma joxe exemple Rufisque revise depuis 1948 pënd rek la ñu am ci ciment bi ñu produit ciment depuis commune de Rufisque bu fekkoon ni dafa am 15 pour de la cimenterie kon doon na am lu duuna duuna duuna duun luy alimenter budget mu mën a définir politique locale am mën a suqali Tëngéej ak li ko wër ci li muy am ci usine boobu mais moom fi mu nekk nii li mu ci am. mooy pënd bi rek ak pollution bi mais amu ci retombé boo demee Kédougou tam dëkk gox-goxaan yi nga xam ne dañ fay gas ay toni toni toni or yoon yu bon yi moo fa nekk même néegu ñax yi ñoo fa nekk amuñu fu ñu fajoo amuñu fu ñu jàngee amuñu dara ñooñu bu fekkoon ni dañuy am quinze pour cent ñu ñu jël cinq pour cent bi séddale ko ñi nga xam ne seen gox-goxaan amul ressource minière loolu dinañu am développement bu équilibré au niveau du Sénégal état nag bu fekk bu bu bu yeboo mu am ñàkk fayda bu toll ni doyloo dix pour cent mais au moins collectivité yi ñoom ñu impliqué leen ci actionnariat yi plutôt que di leen jox ay prélèvement minier minimum ak ay responsabilité sociale d'entreprise ak ay ay ay appui institutionnel ay weccit yoo xam ne euh, du mujj fenn ba noppi weccit woowu sax dañ ko mëtalewul dañ ko dañ ko jox kon loolu benn piste la pour ñun ñu gis ci suñu bopp mais ñaareel bi mooy ñu ñu ñu ñu dindi exonération fiscale maanaam baal bu ñu leen di baal impôt fukki at ak juróom ñu teggi ko comme ni ko Côte tegee teggee Côte d'Ivoire depuis 2010 day fayeeku impôt industrie extractive te loolu ñoom bu ñu commencé fay impôt lu ëpp 1000 milliards maanaam junniy milliards dana dolleeku ci suñu budget kon dana dana dana gën a suqali développement Sénégal dana gën a jox état ay moyens pour mu euh, euh, euh, suqali Sénégal donc ñaari piste yooyu la Claire Vision envisagé mmh. plus maintenant pour transparence au lieu président di signer ay ay ay décret d'approbation comme bii nga xam ne dañ ko cee diggoon dix millions de dollars ñu jaareeli mbir mi assemblée ñu def loi d'approbation au lieu de décret d'approbation nga xam ne léegi député yi ñooy voté euh, loi bi joxe contrat yeeg licence yi nga xam ne même ñoom nguur gi bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale minorité bi opposition bi doon danañ ko yëg presse bi dana ko yëg danañ ko débattre en commission technique danañ ko débattre en plénière kenn du jékki-jékki rek ñu ne total jox nañ ko suñu des ci géej gi yëpp wala ñu jékki-jékki rek ñu ne signé nañu convention sociale yi affaire yi di ñu bett di ñu jëlee kaw fekk ñoom lijjanti nañu li ñuy lijjanti ba pare mm-hmm. donc ñun solution yooyu la ñu gisandi entre autres ci Claire Vision pour que askan wi gis boppam ci moomeelam parce que euh, euh, constitution bi dafa ni ressources naturelles yi askan wi moo ko moom mm-hmm. te pencu askan bi mooy assemblée nationale kon foofu dañu war a nasee ak noccee comme budget bi. alors ñu ñëw ci wàllum pétrole bi gouvernement bu Sénégal daal dina may Cairn Energy mu mun a euh, jox Woodside li nga xam ne moom la am euh, ci euh, projet Sangomar bi loolu di jur juróomi téeméer ak ñaar fukk juróom ci million de dollars Cairn wax ni sax moom dina jox deux cent cinquante millions de dollars ñi nga xam ne ñooy ay actionnaire am ñu bëri di laaj est-ce que Sénégal dina ci gis boppam mais ndax lii lépp yéen gisu leen ci benn gàllankoor yéen waa Clair si waa Clair Vision gis nañ ci gàllankoor yu bëri parce que euh, balaa balaa kenn énergie di mën a jox euh, jaay euh, Woodside day fekk Sénégal autoriser transaction bi kook muy benn pour Sénégal autoriser transaction bi il faut mu renoncer à ses droits de préemption droit de préemption mooy appoo jënd moom bu fekkee ni moom appoo jënd parce que dafa bokk ci mbuus mi moom la ñuy jaay par priorité keneen mënul jënd léegi pour keneen jënd. il faut que euh, euh, Sénégal bàyyi ko mu jënd léegi loolu Sénégal da cee am ndàmpaay parce que bu deful loolu kii jaay du mën a jaay kii jënd du mën a jënd kon moom dañ ko ci jot ndàmpaay boo xam ne ay milliards yu bëri la loolu kenn waxuñu ci dara léegi gannaaw bi ñu permettre euh, Woodside mu préempter ci quarante pour cent actif dafa am ñeneen ñu jonkan bëgg bëgg titre bi chinois yi ñu ngi fi indiens yi sax ñu ngi fi. ak Russie Luke Oil. Luke Oil bëggoon na bëggoon na 40 pour cent yooyu. Remis Horizon tamit ñu ne mi ngi fëgg bunt bi. Remis Horizon mu ngi fëgg ñeneen ñeneen ñu bëri ñu ngi fëgg ci bunt ci bunt bi. Hmm. donc euh, fi mu nekk nii spéculation moo am. xanaa mbir mi dafa am lu ci nekk lu ñu yëgul. waaw lu ci nekk lu ñu yëgul mooy euh, pétrole fi mu nekk nii euh, day gën di jafe di am ci monde bi ñëpp ñu ngi naan pétrole day daanu day daanu day daanu ndax dootul am ci njëriñ mais loolu man gëmuma ko parce que dëkk yi gën a bëri production pétrole. Euh, dañu dañu dañu dañu nekk embargo ay dëkk yu yu grand producteur dañu nekk embargo muy Venezuela nga xam ni un million huit cent mille baril moo fay jóge bés bu ne dem ci marché mondial bi ak Iran bi nga xam ni deux millions de baril moo fay jóge dem ci marché mondial ñaar yooyu boo leen boolee c'est presque déficit u quatre millions de baril ci marché mondial bi bés bu nekk loolu si intenable ñaareel bi dëkk yu bëri yi am pétrole bu bëri boo xoolee Libye dafa am xeex pétrole pour nga jot ci di nga yóbbu armée di nga di nga neexal ay milices wala nga xeex wala nga surveiller ay installation pétrolière Syrie noonu pétrole Syrie dafa naqaree jot dafa tàng Irak noonu Iran c'est un problème politique euh, euh, euh, Venezuela c'est un problème politique kon Afrique dafa nekk foo xam ne dafa am dal am jàmm te pétrole li ci ëpp biir géej la nekk xam nga biir géej ñun lu ñu fa dem di di manifester ji. Mm-hmm. du ñu fa dem di saytu ji euh, ndax tuyau yi nangam lay génne wala nangam lay génne. Mm-hmm. kon ñoom mën nañu pompe foofu lu leen neex ci kaw jàmm seen tanker yi wala seen pipeline yi acheminé ko te du ñu guerre du ñu du ñu du ñu ay installation moo moo moo moo gën a moo gën a rentable si ñoom. Mm-hmm. te te te Afrique dafa am pétrole de qualité loolu moo tax sociétés yi léegi délaissé le Moyen-Orient ak le Proche-Orient yi nga xam ni ay instabilité moo fa am pour ñëw ci zone yi nga xam ne dafa am stabilité. Sénégal dafa am stabilité politique Afrique en général dafa am stabilité politique te ñun euh, euh, avantage bi ñu am pour ñoom mooy suñu pétrole ci biir géej la nekk ñun mënuñu sax dem contrôler ci ko benn te suñu code minier dafa ni tubaab bi bu ñëwee quatre-vingt-dix pour cent bi moo ko moom kon loolu moo gën dëkku naar yi du ñu nangu loolu. Mm-hmm. ba noppi foofu dafa am xeex boole ci kon ñun dañu war a gëm ni dañu am benn avantage boo xam ne dañ ko war a exploiter pour gën a gis suñu bopp ci ressources yi ñu am. te noonu di ko saax-saaxee di ko braade mhm. loolu dafa war a tax ñu gën a taxaw ci suñu suñu moomeel gën ko aar gën ko sàmm parce que l'avenir c'est en Afrique d' accord alors ñu jeexal ak deuxième vague coronavirus bi ak euh, coowal vaccin bi yéen ngeen euh, gëm ne euh, bi la ñaareelu vague dañu ko créer pour jàllale vaccin bi nga mën a ñëwaat ci xëy na li tax ngeen di xeex vaccin bi ak firnde yi ngeen ci am waaw xam nga deuxième vague bi ci xelu nit ñi lañ ko def rek parce que Bill Gates dafa ni bioterrorisme maanaam tiital nit ñi pour euh, mën a mën a mën a jàllale loo xam ni dañ ko bëgg jàllale donc euh, loolu mooy bioterrorisme léegi euh, li ñu bëgg a jàllale mooy lan fexe ñàq nit ñi ja dugal dugal ci ñoom ay ay ay ay tooke ay ay doom yu sew ay ay nanoparticule maanaam nano nanoparticule boo xoolee euh, karaw ni mu sewee nga xaaj ko junni loolu mooy échelle nanométrique euh, loolu ba du ko gis parce que moo gën tuuti microbe ñu dugal ko ci vaccin yi nga xam ne loolu day maye ñu identifier la xam yow yaay mën a lijjanti sa lépp ba noppi connecté la ak ay ay objet parce que 5G euh, day ñëw nga xam ni lépp day day nekk day nekk comme lu instantané donc da leen di permettre ñu contrôler doomu aadama yi nekk ci kaw suuf yëpp parce que médecine dafa def ay progrès yoo xam ne ay cancer ak yenn feebar yu bëri ay AVC yooyu dootul reyaati médecine boobu buñ ko commencé appliquer nit ñi dañuy gën a gudd fan bu nit ñi gënee gudd fan nit ñi dañu gën a bëri ci kaw suuf léegi ñoom ñu ni kon ñëpp du ñu xëcc ci kaw suuf léegi africains yi comme seen suuf am na koom te ñoom amuñu njëriñ ci àddina bi nañ leen a loolu moo taxoon Antonio Guterres euh, bu Nations Unies ONU ni feebar bi day dana boom lu ëpp dix millions ci africain loolu moo doon projet bi mais safaan bi moo am ñoom tubaab yi la feebar bi boom boom yu méttee méttee métti léegi ñu génnee benn vaccin boo xam ni au ñu doore ko foofu feebar bi boom ay nit yu bëri ñun déet Afrique lañ koy doore loolu déjà moo war a njëkk a tey tey tey xelu nit te professeur Raoult nga xam ni moom scientifique la moom nee na Afrique bu ñu nangu vaccin bi parce que dañu leen bëgg a boom. meilleur vaccin mooy Nivaquine que euh, euh, vaccin bi dafa am tooke bu bon boo xam ne euh, dañ dañu ko ciy dugalal en plus maintenant de contrôler le monde parce que dinañu fexe ba dootuñu am choix ba imposer ñu vaccin bi parce que déjà nee nañu ku vacciné wu doo tukki doo doo am compte bancaire doo jàng école doo dem restaurant donc dañ lay beddi ci société bi loolu day tax nit ñi obligé par A ou par B même bu ñu xamee li nekk ci biir vaccin bi sax dem vacciné wu pour dund parce que commerçant bi nga xam ne mënul voyager uti marchandise wala mënul def transaction mënul am permis de conduire mënul am registre de commerce mënul am dara su fekkee ni amul vaccin bi mais kooku da koy du nangu dee day day day obligé gëm def ko donc ñu ngi jëm ci monde boo xam ne tubaab yi dañu bëgg contrôler àddina remplacer yàlla ci kaw suuf te loolu mënta ne kon loolu ñun doomu aadama yi ñoo ko war a bañ te ñun leaders yi ñoo ci war a sensibiliser bépp njiitu réew bu ànd ci vaccin vaccin boobu bokk nga ci crime contre sa population loolu bokk nga ci liy boom sa sa askan ëllëg am nga ci responsabilité bu rëy rëy rëy te Bill Gates képp ku ànd ak moom euh, euh, criminel nga di moom parce que kooku euh, boom nit ñi moo ko tax a jóg te daf ko affiché clairement. jërëjëf Clédor seen jiite Clair Vision gindi askan wi ñu amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. merci madame.